déclaration bi ñuy def mooy dañoo àndoon nag Bougane mouvement gëm sa bopp bi muy dem tàgguwunu waxunu dara moo tax tey ñu jël sunu responsabilité bopp ñun ay citoyen lañ ba pare gëm sunu bopp tey jël nañ sunu décision ànd ak président Macky jaarale ko ci honorable député Sadaga pare nañ pour ànd ak moom liggéey bi fépp fu sunu mouvement nekk dinañ dem récupérer ko ànd ak moom ak liggéey bi pare nañ si lépp incha allahu rabbi euh, kon honorable ñu ngi lay jox sunu loxo di la jox sunu bopp di la jox sunu lépp fas yéene wax ak yow ci ngor ànd ak yow ci ngor ba foo ñu woo ñu wuyu waaw li tax ñu bàyyi ko mooy ay nit sooy ànd ak ñoom da nga leen di respecté booy dem fenn da leen di woo leen damay dem ci lii. ñun ku ñu respecté lañ bëgg ak ku nuy koo xamante ni danga ñuy wax looy def boo nu waxee loo def foo nu woo ñu wuyu la fa waaye pare nañ pour ànd ak honorable député Sadaka kon lu bees lañ ko nar indil mooy lu yees peq lañ koy indil dinañ ànd ak moom fal président Macky Sall premier tour deuxième mandat bi day leer te ñun ñoo siy ànd ak honorable député pare nañ ragalunu wane nañ suñu bopp dinañ ànd ak moom sunu mouvement bi bari na ëpp na cent personnes honorable liñ ko doon indil nii mooy ñi nga xamante ni ñooy responsable lañ ko indil ñi nga xamante ni fu nekk gox bu ne dañ faa jóge pour mën a waxtaan ak moom xamal ne ko ne ànd na moom pare nañ pare nañ pare nañ. dañoo créé benn plateforme tuddee ko Watt euh, Watt boo ko déggee mooy euh, mbooleem fi nga xamee ne mooy parti. opposant yi fi nekk ñu fexe ba wat li nga xam ne am nañ ko fi ci ay meññet mooy nit ñi nga xam ne ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ loolu na moo tax ñoom ñii ma dalal euh, biñ ñëwee wax ma ne ma dañoo bëgg a bàyyi parce que Bougane respecté wu leen joxu leen cër dafa jékki-jékki dem ànd ak Idriss Seck te Idriss Seck ñoru leen xëy na Idriss sekk li tax ñorul nit ñi surtout waa Touba mooy koo xam ne fii ci Touba bi mu nekkee premier amul dara lu fi def du dara. nekk na directeur de cabinet président de la république Abdoulaye Wade defu fi dara lu dul suñu doomi tubaay yi ndomba tànk amoon mu nangu ko ba nëpp di leen tere ñuy wuyoo Mbàkke moo tax tubaa mënu fee am lu bari kon nag loolu ñu ngi ci ñu ngi leen di dalal jàmm di leen wax ne fas nañoo ànd ak yéen pour ñu fal président Macky Sall premier tour ci lu duti caaxaan boogaan nag maa ngi ne ko dafa créé benn moment dee ko gëm sa bopp mais bala ngaa gëm sa bopp da ngay xam sa bopp yéen nag xam ngeen seen bopp. macha xam sa bopp mooy tax li la war nga def ko mais xam sa bopp boo xamoon boppam du dugg ci li muy dugg ak ni mu ci duggee baaxul kon ñu ngi koy wax ne ko euh, organe de presse la yor war na respecter nit ñi parce que fi mu toll nii may wax yow nii ci Ndakaaru boo fa demee ci liggéeyukaayam ci organe de presse bi da ngay fekk ñu def ay taf ay photo yeneen te jàpp nañ ne li jëm ci presse war nañoo respecter nit ñi parce que presse jamono li tax ñu leen di jox ay subventionné mooy dafa doon loo xam ne ñëpp a ko bokk kon loolu mooy warugar te loolu mooy yoon ñu ko wax ne ko na xoolaat boppam te xam balaa gëm boppam mu xam boppam mais Abdoulaye du ma ci wax lu ñaaw parce que wax naa ko wax mais nag maa ngi koy xamal ne ko kilifa du woote luy taalum réew war na xool ne moom du kandida comme moom du candidat na xam ne na dem jàppale président Macky Sall mi nga xam ne mooy candidat bi gën. Touba nag ñun waa Touba nañu fexe ba yooyu mu wax ci ay violence buñ ko wuy ji parce que Touba sunu wargar du loolu ndax sëñ Touba la ñu am te sëriñ bi day tere mboolem lu jëm ci yenn yi. kon nag ñuy fexe ba ñun ñëpp sëñ Touba lañ yaakaar waruñuy fexe ba ay nit difi dee wala ñu fi gaañu te ñëpp doon doomi dëkk bi man loolu. digaluma ko kenn ku dëkk ci dëkk maa ngi wax seen i xale yi nañu bañ buñ ko fekk ci loolu. di wax sénégalais yi na ngeen xam bulletin bi yéen na ngeen ko xam marron la kat bu ñëpp xam te mooy bi am fas yu ñu xam boobu ngay jël woote ñu am ndam incha allahu taala jërëjëf Serigne Touba.